أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak téere kitaabu tawxid sunu borom subhanahu wa taala diñ ci jàngal ñaari aaya benn aaya bi nekk suratul araf beneen bi nekk suratul fatir bunt boo xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal mu ne ay yushrikuuna maa la yaxluqu shay'an wa hum yuxlaquun ndax nit ñi dañuy bokkaale yàlla ci loo xam ne bindul dara waaye loolu ñuy bokkaale yàlla sax dañ ko bind ndax nit ñi dañuy jox palaasu yàlla mbindeef mu mel ni ñoom mbindeef moo xam ne deful dara loolu mooy bunt bi bun ñëwee ci min ahdafi dars danañ fa fekk borom bi subhanahu wa taala di leeralal jullit di ko xamal ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki yeyoo jaamu moom kenn yàlla rek lañ yeyoo jaamu kenn amuñu droit jaamu la baat boobu ñu naan jaamu yàlla moo ko moom keneen amu ci place ñaareel mooy an yu yu bari hinal al muslim ala butlaani shirk mooy jullit bi mbir mi mën a leer ci moom ba mu xam ne bokkaale moom musiba la ñetteel mooy an yusbita al muslim ajza al maabudat min dunillah dañuy leeralal jullit bi ne ko lépp lu dul yàlla lu tële la képp ku dul yàlla lépp lu dul yàlla subhanahu wa taala loolu dafa tële bu ñëwee ci aaya yi mooy madaxal buntu bunt bi li ci njëkk mooy ann allah subhanahu wa taala huwa alxaaliq mooy jullit day yëg ne yàllaay ki bind kenn bindul ku dul moom yàlla rek moo bind yàlla moomu bind wa huwa almaalik mooy ki moom wa huwa lezi yasma addua yàlla mooy dégg woote yàlla mooy dégg ñaan wal qadiru alal ijaba yàllaay ki attana nangu ñaan fa huwa al mustahiqu lil ibada wahdahu moom yàlla moom mooy ki yeyoo jaamu yàlla moomu subhanahu wa taala mbokk yi mooy ki yeyoo jaamu wa gayruhu min almalaika wal anbiya wa gayrihim laa yustaxaqu l ibada li daafihi wa ajzihi mbokk jullit yi bu ñëwee ci bunt bi li ñuy jàng tey mooy ñun ñëpp war a def suñu bopp def suñu xel ne yàllaay ki bind yàllaay ki moom moom yàlla mooy dégg ñaan moom yàllaay ki mën a wuyu ñaan ki ñaan dafa am ku mu ñaan kooku muy ñaan mooy yàlla yàlla dong moo ko mën a nangul ñaan gi comme yàlla moom moomum yi moom moo yeyoo ñu jaamu ko moom kenn nag keneen ku dul moom bu yeboo mu nekk malaayik bu yeboo mu nekk ab yonent bu yede bu yeboo mu nekk leneen walla keneen ku tële la dara la mënul keneen ku dul yàlla ku tële nga mënoo dara suñu waxee malaaka yeeg yonent yi nag kon ñeneen waxi noppi borom bi subhanahu wa taala di ñu jàngal lii pour mu ñu xam ko ci suñu bopp ci ay aaya ci alquran pour ñu xam ne yàlla rek mooy yàlla ku dul yàlla ku tële nga borom baa ngi wax ci alxuraan ku dul yàlla bu weñ tegee ci sa góom coppati ci dara munoo fexe ba weñ bi delloo si la ko weñ yii di naaw mbindee fii borom bi di wax ne doomu aadama yeeg lépp jinne yeeg ñëpp ñëpp àdduna yëpp bu nu àndee mënuñoo defar weñ hum mënuñu defar weñ mu ne bu weñ coppatee ci seen góom dara mënuñoo fexe ba weñ bi delloo si xam nga aaya ba fu ko yàlla tëje mooy du fa taalibu wal matlub borom bi mu ne ci suuratul araf aaya 190 92 aaya 191 aaya 192 borom bi mu ne ayush rakuun maa laa yaxluqu shay'an wa hum yaxluquun yuxlaquun wala yastatiicuuna lahum nasran wala anfusahum yansuruun borom bi ne ndax ay yushrikuuna ndax dañuy bokkaale maa laa yaxluqu shay'an lu bindul dara lu defarul dara lu sàkkul dara loo xam ne sax loolu moom waxum ñoom ñooñu yuxlaquun dañ leen a sàkk ñoom ndax dañuy bokkaale yàlla koo xam ne deful dara kooku moom moom dañ ko bind nga jël ko di ko teg place yàlla wala yenn saa yi sax nga jox ko daraja wala martaba bu ëpp boo waroon jox yàlla moo xam mbindeef la moo xam lu mu mën a doon loolu la sunu borom subhanahu wa taala di dàq pour ñu xam ne yàlla mooy yàlla yàlla amul moroom yàlla mu ne ay yushrakuun ndax dañ may bokkaale associé ashirk mooy asharik mooy koo bokkal dara comme tey ni ñaari jigéen bokkee benn jëkkër est-ce que góor dina ko nangu bokk soxnaam loolu mooy shirk maa laa yaxluqu shay'an ci loo xam ne defarul dara yaxluq baatu xalq la yàlla utilisé mu ne sax wahum yuxlaquun ñooñu dañ leen a bind dañ leen a sàkk yemu foofu mu ne wala yastatiuuna lahum nasaran loolu wala ñooñu munu leen a indil ndimbal wala yastatiuuna lahum nasran munuñu leen a dimbali wala anfusahum yansuruun ñooñu munuñoo dimbali seen bopp au contraire sax nit ñee leen di dimbali ndax léeg-léeg ñu toog ba caag ñu aajowoo mbindee fi kaa leen ngeen defal ñu nàngam wala aajowoo nañ nàngam aajowoo naa ku ma defal nàngam boo bëggoon dugg ci toilette bi sax da nga naan nañ ma waajal na nañ defar barab bi gis nga wala anfusahum yansuruun yàlla nee na ñoom munuñoo dimbali seen bopp allahu akbar maanaam aaya yi ci alquran boo koy jàngale ci réew mu mel ne Sénégal saa yu yëkkati benn mu da ngay gis koo xam ne day imaginer diw ngay wax dëgg la diw la moomu la parce que yàlla moo wax diw moomu la kooku la parce que yàlla moo ko wax alquran mooy aaya yoo xam ne saa téere boo xam ne aaya boo yëkkati fa nga koy waxee am na koy waxal ña koy dégg ñu ngi gis mbir mi nii lu tax xamul tax alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla mi bind nit ñi moo leen xam comme yàlla moo nu bind moo nu xam nag ñun lay waxal foog mbir mi nekk borom bi ne ñu ngi ñu ngi bokkaale ci loo xam ne laa yaxluqu shay'an defarul dara bindul dara sàkkul dara tey mbir yi nga xam ne moo ñu gàllankoor wala nit ñi nga xam ne ñooñu gàllankoor ba demuñu ci yàlla ay mbindeef la defaruñ dara wala bu dee ay objet ay garab ak ay xàmb ak defarul dara bu dee ay nit defaruñ dara au contraire yaa ngi ñoom yéen a bokk benn borom borom bi ne wahum sax yaxluquun ñoom dañ leen a bind ñoom ñooñu dañ leen a sàkk ay mbindeef lañ ndeysaan dañ leen a sàkk comme yow ni ñu la sànkee yéen a bokk nu leen sàkkee yéen a bokk ndox mun leen sàkkee yéen a bokk nu ngeen juddoo kon lu tax ngeen bàyyi yàlla di topp ñooñu mu ne wala yastatiuuna lahum nasra mënunu leen a dimbali wala anfusahum yansuruun mënunu dimbali seen bopp ku mënul dimbali boppam nag boo demee di sàkku ji ci moom ndimbal da ngay sonal sa bopp ñaareelu aaya sunu borom mu ne walladina tad'una min dunihi laa yamlikuuna min qitmir ñi ngeen di woo bàyyi yàlla yàlla mu ne moomuñu amuñu laa yamlikuuna amuñu moomuñu min qitmir qitmir mooy benn der la saal tàndarma ci biir xott woowu xoox boobu der boobu ci kaw yàlla nee na nit ñi ngeen di jaamu mun amuñu lu toll noonu amuñu ko laa yamlikuuna la wax min qitmir qitmir hiya alqisratu allati ala nawaati tamr mooy xoox bi tegu ci kaw tàndarma saal bi yàlla nee na ñi ngeen di jaamu amuñu lu toll noonu moomuñu ko amuñu ko dëgg la yamul foofu de mu ne in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum bu ngeen leen woowee dégguñu li ngeen leen di woo dégguñu ko walaw sami'u mastajaabu bu nu déggee duñ leen mën a wuyu allahu akbar wa yawma alqiyamati yakfuruuna bi shirkikum yawma alqiyama sax ñoom dañ naan la man woowoo ma woon de xam nga lu tax maag yow bokkuñu woon jamono man ñëwoon naa ba dee yow nga ñëw sama ginnaaw nga ni man nga woo yow xamuma sax yow noo ma foo ma xamee yow man yow xamuma la allahu akbar moo tax man leen alxuraan saa yoo ko yëkkatee ah kenn de jàpp ne kii ñoom diw lay wax parce que yàlla moo ko wax aaya yi may wax ni fi mu nekk nii ñun ñu toog yëpp suñu xel am na ci lu muy dem wala wala wala wala wallazina tad'una min dunihi laa yamlikuna min qitmir wa in tad'uuhum laa yasma'u bu ngeen leen woowee duñ dégg ñaata ci ñu tey ñooy woo ay bàmmeel jàpp ne borom bàmmeel bi mu ngi lay dégg wala wala ah dinaa ci joxe misaal lu bari safaaf mu ngi dund ah bu la doon dóoru léegi fii ci jàkk ji nii ngay wu ngay yuux di ko woo ndax dina ñëw lu tax lu tax du ñëw ah fu mu nekk fu mu nekk mu ngi dëkk ba ban dëkk la mu ngi bawal mu ngi dund léegi ñu lay mbugal fii ngay yuux di ko ñëwul ah lu tax di ñëwul parce que rasul yi déggu la ku dee nag booboo gën a garaaw de ah waaw yow kooku mu ngi dund yaa ngi koy woo ñëwul te mu ngi dund nga bëgg a woo ku dee ku dee nan ngeen koy tuddee ci Sénégal ku dee lu ñuy wax ah déedéet déedéet déedéet déedéet ku dee am na nu ngeen koy waxee déedéet ku génn ah ku génn àdduna nga bëgg koo woo ci àdduna te moom génn na mu génn àdduna yow nga bëgg koo woo ci àdduna te yow yaa wax laa yaa wax sànq ne diw de génn na àdduna yow nga nekk àdduna nga ko woo te moom génn na fi allahu akbar allahu akbar ah ñun dañoo feebar billaahi yow yaa ko wax nga ni diw dafa génn àdduna ba pare nga koy woo te yow ci àdduna nga nekk moom génn na àdduna wala waxu leen loolu wala lu loolu ngeen di wax ku dee lu ngeen di wax dafa génn àdduna yow mi ko yow foo nekk àdduna nga bëgg a communiquer ak moom yàlla moo wax dëgg in tad'uhum bu ngeen leen woowee ñu ne mu ne laa yasma'u du'aakum déggunu li ngeen leen di woo déggunu ko ndeysaan lu tax nekkul ci àdduna nga bëgg koo woo xam nga lu mu ci teg allahu akbar walaw sami'u mastajaabu lakum mu ne bul leen déggee nit munu leen a wuyu ndeysaan munul wuyu ndeysaan munul wuyu même bu la déggee yàlla ne na munu laa wuyu ndeysaan allahu akbar wa yawma alqiyamati yàlla neen ëllëg yawma alqiyama yakfuruuna bi shirkikum day taxaw naan man yow nga loo wax nga naan ko man man yow laa toppoon mu ne waaw man man dama la xam yow yaay kan yow man ak yow bokkuñu jamono man fekkiwuma ko woon sax yàlla man ci xaw ma ko day koy weddi lii alxuraan la surtout Fatir aya 113 aya 100 aya aya 13 aya 14 yàlla mu ne bu nu déggee du nuyu te yawmal qiyam yakfuruuna bi shirkikum boo taxawee mu taxaw dalay weddi xam nga yàlla lu mu tëj aaya bi mu ne wala yunabbiuka mislu xabir kenn mun laa informer information bi lu dul ki dañ kumpa ki dañ kumpa mooy kan wala yunabbiuka kenn mun laa xabaar xabaar bi ah mislu xabir ku mel ne yàlla rek moo la ko mun a wax yàlla mi xam moo tax mu wax la lii parce que yow li ngay foog du loolu léegi nag aaya yu mel nii moom la nit ñi bàyyi moom lañ bàyyi jàngale moom lañ ragal a firi ko defee dëkk bi tàkk alku nga defa ne boo fi toogee léegi defa ne am na koo xam ne xam na li nga xam na la mu ngi fële mu ngi lay gis waaw yenn saa yi sax nga gis ko mais wallahi photo bi li ngeen di wax mu ngi koy dégg inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kii nga lay gis mi ngi lay gis mi ngi lay gis waaw yenn saa yi nga gis ko wax loolu photo baa ngi lay gis wala mi ngi lay dégg wala wala fekk yooyu yëpp ndeysaan du dara seytaane rek seytaane mooy gàllankoor doomu aadama yi pour duñu gis dëggu yàlla bi mën naa lii alxuraan la te yàlla li mu wax dëgg la xool misaal bi ma la jox léegi yow yaa ngi kuy dund kuy dund mais nga am problème di ko woo déggu la yow sax bawal nga wax waaye fii ci ñun rek am na ñoo xam ne seeni waajur nekkuñu bawal ñu ngi fii tout tout près mais yëguñu sax bi ngay ñëw fii suñu la fi doon def dara après xoolal démb dafa am benn waay bu ànd ak doomam di liggéey maçon mu ñëw won ko li muy liggéey ba pare won ko ginnaaw booy bi dóor ñaari martu dal bi daanu ci kaw mu dee ñu wooy papa ci ñu wëri ko wooy ko ah te yëgul li xew te mu ngi dund léegi nag yow nga bëgg a taxaw di woo ku dee koo xam ne yàlla mi nga gëm moo la ne kii déggu la kooku benn la ñaareel mu ne bu la déggee yi du la wuyu waaw yàlla bu waxee loolu koy doy na mais lu fi nekk seytaane seytaane moo ñu këf moo ñu fëkk moo lëndëmal suñuy xel gëlëm loo suñuy bët ngemb ay nit ñoo xam ne lu ñu dund leen bëgg di la wax di teggi waxu yàlla teggi waxu yàlla teggi waxu yàlla we- yemul nit ne la bàmmeel bi woote naa borom wuyu wala wax naa photo bi photo bi tontu ma waaw ñi ñu ñeme yàlla ñoo xam ne di nga ci gis koo xam ne li muy wax wallahi maa wax ak photo di fekk dara amu ci seytaane sax mën na nëbbu ci ginnaaw photo bi wuyu la wala mën na bëru ci ginnaaw bàmmeel bi wuyu la parce que bu leen fàtte ne seytaane moonu mag kooku ngay wax seytaanee ko mag yonent bi seytaanee ko mag aadama seytaanee ko mag te seytaane moom moo waxoon yàlla ne li ëpp ci njabootu waa ji duñ dugg aljanna te mu ngi fi ba léegi te waxoon na ne yàlla man dinaa gàllankoor nit ñi ba nuñ dugg aljanna kon mun na mun nga woote mu làqatu ci suuf wuyu bu nu fàtte li mu waxoon yàlla la aatiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an shamailihim fala tajid aksarahum loolu seytaane waxu koon yàlla dinaa ñëw ndeyjoor ñëw càmmoñ ñëw ci kanam ñëw ci ginnaaw maa ngi gëñ ci sa màggaay yow yàlla lépp ci nit ñi doo fekk ñu jaar ci sa yoon te mi ngi fi ba mu ngi dund ba léegi wala da ngeen jot xabaar ne faatu na ndeysaan dañu laaj benn borom xam-xam ñu ne ko ayanaamu seytaan ndax seytaane dina nelaw mu ne law naama lastarax naa bu nelawoon nu noppalu bu nelawoon benn waxtu sax ñun ñu noppalu du mës a nelaw ndax rek bëgg a yàqal doomu aadama yi mbokk yi bu ñëwee ci anasiru dars élément leçon bi danañ gis ashirku taalluqu bi maxluqin ajiz bokkaale mooy nga wékku ci mbindeef mu tële loolu mooy bokkaale nga wékku ci ku tële te tële weesuwut dara dal la ki nga yaakaar yë- yëgu ko wala dara dal la ki nga yaakaar yëgu ko ñëw ne ko yow yëg nga ne diw faatu na mu ne loolu kañ la ñu ne ko biig xanaa dafa mu ne mu ne xanaa dafa feebaroon ko koy yëgu ko tële weesuwul loolu te yow nee na yow yaay léppam ñu ñëw ne la deena nga ni kañ ñu ne biig inna lil nga dem ne inna lillahi wa inna waaw moom lu ko dala ñu ne ah pourtant moom temps yëpp dafa feebar de nga ni yëguma ko lu tax waxuñu ma ko ah kon kay xam nga ne yow da ngaa tële kon bokkaale mooy nga wékku ci ku tële wabaxa allahu subhanahu al mushrikin ala jahlihim wa dalalihim yàlla xas na xas la yàlla def xas bokkaalekat yi ci seen réer ak seen cànkute wa bayyana ajzi hadihi al asnaam min annaha la tuslihu an takuna maabudan yàlla ni xamal nit ñi ne xërëm yii bàmmeel yi garab yi nit ñi ñu topp te bàyyi yàlla yellul yellul moo tax ndeysaan sunu boroom benn waaye dama koy seetaan barki démb ci télé bi ñu laaj ko mu tontu tontu bu garaaw waa ji dama lu tax nga woy sa woy yi mu ne damaa yërëm yàlla waa ji ne ko yow xam nga li nga wax mu ne xam naa kay mu ne xamoon naa bu ma ko waxee nit ñëpp dinañ tiit waa ji ne ko tontul ñun koy tiit nañ mu ne dama xam ne yàlla li muy defal doomu aadama bis bu nekk doomu aadama wow koŋ rek ne du ko topp mu ne ma yërëm ko allahu akbar laa yow doomu aadama moo wowle ah xam nga wax bi dafa garaaw mais au fond da ngay xam ne doomu aadama ku doy waar la xoolal yàlla li muy def xoolal lu ko doomu lu ko yàlla may ba pare li ko yàlla sant mu lànk di ko defal nit fi mu ne koo gis xoolal julli gii rek xool nu mu simple xoolal ñuy yendu ci stade bi julli ak football lu gën a métti loolu nag la waa ji xool quoi ah xoolal li ni mu yombee rek julli mais xoolal nga gis ku la xoolal bëre dóor la ba ngay naaj nga gis nit ñi yendu ci bàyyi julli ak leen yàlla sant ni mu simple nga gis ku ko ku lànk ne du ko def soo doon wàññi nag noonu la mel yenn saa yi nga gis koo xam ne wala daw cinquante kilomètres ah buñ la waxee noonu de waaxul waaxul ñaari mètre dem ci jàkk ji nga lànk day gis ku yeewu fajar daw dix kilomètres ñëwaat yow di chronomètre dix kilomètres laa daw ci ci ci une heure de temps xool nga ne ko julli nga mu ne non après moo sangoo après quoi après inna lillahi c'est que lii moo tax nit ñi ak nit ñi al ko topp ay kenn xamul di bokkaale yàlla def ay sacrifice yu bona bon moo tax sunu borom ne mbindeef yooyu lu ci njëkk mooy laa taxluqu shay'an wa man laa yaxluq laa yastaxiqu l ibaada maanaam ku sàkkul sàkkoo defaroo moomoo ndax yow yeeyoo nga jaamu ngay jaamu koo xam ne sàkkul moomul bindul nga bàyyi kele ne maa sàkk maa moom maa bind ndeysaan nga topp sa moroom sa moroom sa moroom nga koy defal li nga war a defal yàlla borom bi ne moo tax mu posé question première aaya bi mu ne a yushrikuun maa laa yaxluq shay'an ndax dañuy bokkaale yàlla ak lu defarul dara ñu bàyyi ki defar mu ne maxluqun maxluqatun wa hum yaxluquun ndax ñoom yuxlaquun ndax ñoom dañ leen a bind ay mbindeef lañ ak yow comme yow koo xam ne ni mu juddoo la judd bi muy judd ay loxo ñoo ko xëcc mu génn mu taq rip ak deret ak ndox ak ovule bu salte ñu raxas ko ba mu set laxas ko ci sagar ñu woowu ñu tudd ko li nga mel la yëg li nga yëg la yëg nga bàyyi ko di topp yàlla nga bàyyi yàlla di ko topp la hawla wala quwwata illa billah yàlla nee na dañ koo bind maxluuq da ngay jàng ci usulu salaasa ñu ne la fa kullu ma siwa allahi alamun lu dul yàlla rek mbindeef wala du loolu ngeen jàng maxluuq ku ñu bind rabia danaan wax yàlla danaan wax laytaka tarda wal anaamu xidaabu yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la mu ne moom faalewul dara lu dul yàlla ndax lépp lu nekk ci suuf suuf la est-ce que xam ngeen loolu lépp lu ngeen gis mu nekk ci kaw suuf suuf la boo ko weddee bàyyil mu yàgg fi bu yàggee suuf si lekk ku mujj nekk suuf kon mu ne lépp lu dul yàlla rek mbindeef la kon yàlla daf ñuy wax ne waruñu ko fi bàyyi kon di topp mbindeef yi est-ce que jaadu na est-ce que xel nangu na ko mu ne laa tastatiu nasran man yaduuha laa tastatiu nasra man yaduuha mbindeef yooyu mënul dimbali ki ko woo ki koy woo mënu ko dimbali ndeysaan wax naa leen léegi te kenn ci ñun bu ñu ko doon buggal papaam a ngi dund ñu koy dóor fii ñun ñëpp ñu groupe di ko sot ñuy jël ay yet muy yuux di woo papaam papaam a ngi tout près ngeen ne du ñëw loolu ngeen wax te papaam a ngi dund léegi nag yéen ngeen bàyyi kooku di woo koo xam ne dafa génn àdduna te yéen yéene ngeen yéen a wax ne waa ji génn na àdduna yéen ngeen nekk ci àdduna di woo ki génn ki génn àdduna kuy tukki sax ku génn Sénégal tukki yoon numéro orange léeg-léeg nga koy woo boo jotul communication bu normal ay ay ay pexe doo ko jot da ngay woote ñu ne la numéro bi mu ngi hors service parce que ki ngay woo nekkatul Sénégal wala wala allahu akbar ndeysaan nga gis ku taxaw tiim nit ku dee wala mu tiim bàmmeel wala mu tiim garab wala mu tiim ay kuur ay gën yu ñu samp mu koy woo waaw nga gis ku ciy xeex tey jii nit ñi boo leen ne lii du dëgg nga gis ñu ciy xeex mu jaral leen rey la boo leen ne lii du dëgg mu jaral leen ñu rey la mu jaral leen ngeen ne kii ngay woo nekku fi dafa dee te alxuraan moo ko wax yàlla mu ne wala yastatiuna lahum nasran munuñu leen a dimbali doy na ku toll na yàlla ni kii mënulaa dimbali loolu kay doy na laa tastatiu nasra nafsaha moom ci boppam munul dimbali boppam wax na dëgg wallahi yàlla moo wax dëgg ki nekk ci bàmmeel ñu suuf si ñu jal ko ci kawam kii kay bu doon njëkk dëgg dëgg dëgg di dimbali ku muy njëkk dimbali xanaa dangaa fàtte kii bi mu faatoo dañ koo sang léeg-léeg sa nga dégg ne nañ ko suul balaa nit ñi ñëw ñëpp daw ñëw ñu ne suul nañ ko bu yàgg ah waxuñu suul na boppam de lu ñu wax suul nañ ko ñoom ñoo ko sang ñoo ko sang ñoo ko suul est-ce xam ngeen lu tax duñ xaar nit ñi ñu leen di profité di leen suul parce que bëgguñu nit ñi gis ni ñu leen di def code yi day wàcc daraja bi day wàcc loolu moo tax de ñuy profité minuit cinq heures du matin rek balaa nit ñi ñëw ñuy suulee ñëw defar affaire bi bàyyi nag defar ci kaw ba mu rafet nag bàyyi nag nit ñi ñëw di di di lay lay ak xel baaxul ak xel baaxul boo ñëwoon nga fekkee bu ñuy suul ku dee li ñuy suule nit ñi doomu lañ leen di suule yi ñëw teg kees bi mu nekk ci dara la mënu ko gas ba mu xóot ñu ne indi leen ko ñu jox leen ko ñu dugal ko nga dégg ñu ne tekki leen buum yi mu ne mu ne patt noppi lu tax wax dimbali lu boppam waaw loolu yëpp defalu ko boppam lañ ko ko defal yàlla moo wax dëgg lan la yàlla wax yàlla mu ne wala yastatiuuna lahum nasra yemu fa mu ne wala anfusahum yansuruun mu ñoom yéen olof yi dañuy wax ne bu sikkim yi lakkandoo ku nekk boytal boytal waaw yàlla nee na kii ngay ñaan ndimbal moom mënulaa dimbali moom mënul dimbali boppam kon ku mënul dimbali boppam ndax mën na dimbali keneen bu la mënoon dimbali kon suuf si du tegu ci kawam suuf du ko war wax leen ma fi ku suuf warul wax leen ma ko mu ne wala rayba sikk sàkk amul anna haada min aqwa adilla ala butlaani shirk mu ne aaya bii dafa bokk ci aaya yi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci ay dalil yuy yàq bokkaale bu fekkoon nit ñi dégg nañ ko mais nit ñi duñ ko dégg bëgguñu ko sax fi mu nekk boo nekkoon ci télé ak rajo yi wala ngay wax lii rek léegi nga dégg ñu téléphoné kooku nañ ko fi jëlee ndax day yàq day yàq kii yàqkat la lu muy yàq ah lu muy yàq ah gis ngeen waaw dañ ko fi wàcce kii dafa bëgg a taal fitna ci réew mi ndax li muy wax yàlla neen nañ ma jaamu man kese loolu day taal fitna buñ ma bokkaale ah loolu day taal fitna aaya bi dafa bokk ci aaya yi nga xam ne dalil yu ne kenn yu kenn mënta wedd yu yàlla jox nit ñi la wa ala anna allazi yastahiqu al ibada huwa allahu al xaaliqu ar raziq al mudabbir allazi yansuru ibadahu al muwahidina duna siwa bu fekkee dañuy wax dëgg rek ki ñu war a jaamu ki yeyoo jaamu dëgg al xaaliq mooy ki bind ar raziq kii wër sëgalaate ki nga xam ne lépp dooleem ji moo ci tegu ki nga xam ne mooy dimbali jaamam yi nga xam ne ñoo ko gëm kii lañ war a jaam mooy yàlla subhanahu wa taala beneen bi mooy albarahin alqaati ala butlaani shirk wa raddi ala almushrikin yàlla dafa joxe ay lay burhan mooy ay dalil yu leer nañ yoo xam ne bokkaale dafay war a jóge ak tontu yi ñuy tontu bokkaalekat yi yooyu bokk na ci sunu borom subhanahu wa taala mu yëgal ñu ne anna al malik lahu wahdahu moom moom moom yàlla nee na maa moom ki moom ak ki moomul est-ce que war nañoo tolloo maa moom même kii maye gardien bi ñu gardeloo ak ki moom boroom kër gi moom ñoo yem moomuñ de li tax yemuñ waaw yàlla ne man maa moom kenn moomul ku dul ma te loolooy li wér de koo fi gis mu ne maa moom déglu ko ay at nga dégg ñu ne la dee na ana lim moomoon ah mos ngaa dégg ku la ne maa moom asamaan maa moom suuf si maa moom jant bi maa moom weer wi léeg-léeg nga dégg ñu jaay benn mi def ne ko yaay borom jaam yi kii mooy borom jaam yi ay fan mu dee. bàyyi fi jaam yi kon moomu leen woon dañ ko tuumaal dañ ko tuumaal borom jaam yi kenn la mooy yàlla waaw walillahi man fi samawati wal ard walillahi mirasu samawati wal ard allahu akbar yàlla rek moom moom yàlla ki moom kon ki moom moom lañu war a jaamu wahdahu moom kenn nag wa jamii al maxluq wa jamii al xalq taxta tasrifihi mboolem mbindeef yi ñu ngi ci keppaaru soppikoom moom yàlla lu ko neex la koy def mboolem mbindeef yi bu ko neexee nga feebar bu ko neexee nga wér bu ko neexee nga gudd fan bu ko neexee nga dee bu ko neexee nga am bu ko neexee nga ñàkk waaw yàlla moo koy def te yàlla bu ko defee kenn mënu ci dara ku yàlla rey kenn mënu ko dekkil ku yàlla teg feebar dangay gis benn milliardaire bu feebar ñu wër hôpital yu àdduna bi yëpp kenn mënu ko faj waaw dafa am benn président benn buur ci buur yi Iran la nekkoon bi muy feebar Égypte la ko fekk mu nekk ci sukuraat di waaj a faatu américains yi ñëw indi ay machine oxygène machines yi ñooy génnee deret bu dee bi yii di dugal deret yii di dugal ndox yi ñu takk ko appareil oxygène muy noyyi biir hôpital bi ay militaire di ko garder ci biti boo côté géej sous-marin bi nekk fa armée de l'air nekk ci kaw armée de terre nekk ci suuf kis ki mu ne arsalal maliku malakan li yaxuza ruuhul malik mu ne famanil malik wax jooju nag boo ko bëggee firi ci arab du neex arsalal maliku malakan li yaxuza ruuhul malik famanil malik kon yàlla mooy yàlla yàlla moo moom mbokk yi yàlla rek mooy dëgg ñi ngeen fi gisoon yëpp ñuy yàlla yàlla lu fu ñu mujj ana firawna mi woon ana rabbukumul aala ma alimtu lakum min ilahin gayru anam teen kon yàlla mooy dëgg yàlla moo moom sunu borom moomu fa huwa almustahiqu lil ibada li tafarrudihi bi sifatihi rububiya yàlla moom moo yeyoo jaamu ndax yàlla moomu moo yor melokaan yooyu moo ko moom si melokaan yooyu kenn moomu ku dul yàlla moo da nga gis ci tura bi albaaqi moo fi des alxaaliq mooy ki bind alraziq almaani almuti moom rek moo am tur boobu moom rek sunu borom subhanahu wa taala moom yàlla moom mooy dégg ku ko woo ku ko ñaan mooy borom kàttan ci nangu ñaan waajooju wuyu ko waaw sunu borom subhanahu wa taala fa laqad axbara taala ajza tilka almaabudat min arbai awjuh yàlla weddina yàlla leeral tële mbindeef yooyu wala mbir yooyu ñuy jaamu te du yàlla yàlla leeral ne ñooñu munuñu dañoo tële ci ñeenti étape bu njëkk bi mooy adamul milk moomuñu moomuñu is la tamliku adna shay walaw kaana xaqiran qala taala maa yamlikuuna min qitmir ku moomul munoo def mbir mi ci li nga neex li la moomu leen saa nga ni kenn yóbbaale ma ci oto bi mu ne moom ma kii sama sama patron moo ma yónni ma war ci fas bi mu ne moom ma ko dooma ci may moom ma ko moomoo kon yàlla mi moom moom moom mbir yi moom la ñu war a topp beneen mooy adamu sima it dua ñooñu dégguñu ñaan bi sooy woo même xale buy ñaan baayam te baayam déggut ndax dina ko may ndeysaan yàlla nee na in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum ndeysaan bu ngeen leen woowee déggunu ko lu tax déggunu yéen yéen ne nekkuñu fi fu nekk fu dem dañoo génn àdduna te yow foo nekk yaa ngi àdduna yow kee génn na àdduna yow yaa ngi àdduna waaw kii nekk génn na yow yaa ngi fi nga koy woo wala li leen waroon communiquer dafa dagg du dem yow yaa ngi ci benn fu tudd daaru dunia kee mu ngi benn dëkk bu tudd daarul axira amul réseau luwaa yi nekk fii nekkul fee ah fii dafa am làmp am jant am weer fee amul foofu fépp lépp crise selew nga bëgg ko woo du dem moo yàlla mu ne dégguñu ñetteel mooy adamul qudra alal istijaaba amuñu kàttan pour wuyu jàngeen alquran yàlla mu ne laa yatakallamuun illa man azina lahu rrahman kenn du fa wax lu dul ku yàlla ne waxal léegi nag ñoom yàlla ne waxul wax leen ñu ne dañuy wax fii rek police dañuy jàpp ñëpp ñu leen ñëpp ne teg kenn bëgg wax ñu ne ko ku la wax loo yow police rek police waaw police classe sax classe da ngay gis maître bi di jàngale daal di tegluwaa ne ku bëgg a wax yëkkati sa loxo posé benn question nga gis ñoom ne kenn ah ah yëpp dañu naan waaw fii rek classe laa wax classe waxuma la ak àllaaxira yàlla mu ne ñoom amuñu kàttan pour tontu lu tax allahu akbar borom bi mu ne fa hiya laa tastajibu liman daa ndeysaan waaw ku leen woo mënuñu laa wuyu aaya bi mooy lan walaw samiu mastajaabu bu nu déggoo nit mënuñu laa wuyu lu tax parce que amuñu ci ndigal aw ma ci ndigal de léegi benn waaye mu ne la non non aw ma ci ndigal man ndigal moo ma fi teg aw ma ci ndigal waaw léegi nag ngay woo koo xam ne yàlla waxu ko tontul mu lay dégg waaye yàlla waxu ko tontul kon fu mu lay wuyoo ñeenteel mooy ann hadihi almaabudat tabarra'a min aabidiha yawma alqiyama ndeysaan gis ngeen yooyu ñuy topp yàlla nee na yawma alqiyama dañ lay wax ne man xawma la man jaamuwoo ma woon man duma sa yàlla xam nga yow mii lu tax man jaamuwoo ma woon yow xamoo ma parce que maa yow bokkuñu sax jamono te xam ngeen lu ngeen xamul am na ci nit ñi ñoo xam ne li ñuy jaamu xamuñu ko de lu dul photo rek lañ gis te photo bi mun na bañ a nekk moom parce que dessin la kon mbindeef ma ëllëg bu ko yàlla nee cuttu taxaw nga indi photo bi mën naa nekk ku dul moom. léegi nag nga naan nga nga naan waa borom photo bii la yàlla indi mbindeef yëpp gisoo photo bi gisuñu kan la ñu ne la waa kan la kii kan la ngay wax kon nan topp yàlla loolu mooy dëgg. ku bañ a réer bañ a sànku nan topp yàlla yàlla toppaloowunu kenn ku dul boppam kenn xam ngeen sax luy tax ñu topp Muhammad mooy day wone nu ñuy jaamoo yàlla loolu moo tax ñu koy topp moom moo ñuy won ni ñuy jaamoo yàlla loolu kese moo tax ngeen dégg yàlla mu ne atiu llah wa atiu rasul moo tax nga dégg mu ne sallu kama raaytumuni usalli moo tax nga dégg mu naan xuzu anni manasikakum sunu borom ne subhanahu wa taala yowma alqiyam yakfuruna wa yowma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum yowma alqiyam bu jotee ñooñu ngeen di jaamu dañuy weddi ne jaamu leen woon leen topp leen woon leen isan ayuha al ahbab mbokki jullit yi fa haadihi dalail dalil yi tegtal yi naasiatun fi butlaani ibadati gayrillah dafa samp ay tànkam reenam saxal ko ci daq weddi dajji lépp lu ñuy jaamu te du yàlla subhanahu wa taala waaye nag dalil yi ñun duñ ko mën a duñ ko mën a daliloo lu tax parce que gëmuñu alquran lii yàlla moo ko wax mbooloo moo ko wax nga gis ci biir mbooloo mi ñuy weddi naan loo ah kii li muy wax dafa xamul rek am na ah waaw am na foo xamante ne léegi boo fa taxawee wax ak borom bàmmeel bi mu wuyu la li waa ji doon wax ne dafa am ku dee nit ñi ñëw jaala si de ci bis su dëj bi ñu ngi ko suul dem ci guddi bët set nit ñi ñëw benn waaye ne gis ngeen bàmmeel bii borom bàmmeel bi ñu ne ñu ne lim mënoon démb tey la ko gën a mën dégg nga koo waaw noo hanki koo ko hande o ɓuri ɗum waawde allahu akbar est ce que loolu dëgg la koo waaw noo hanki ko lim mënoon démb o hande o ɓuri ɗum waawde am ngeen ne kii mënatul xam nga nit ñi dañoo def yéena ko sang moo doon sang boppam waroon nañ ko wax sëriñ ki waxoon loolu ki waxoon loolu boppam bu tegee micro bi benn waaye dafa doon jël micro bi ne ko ah kii de da doon sang boppam mais tey dañ koo sang kii de da doon sol ay yére ñoo ko solal kii de ñoo wàq suuf si ba mu xóot dugal ko ci biir wàcc suuf si ci kawam dem ñibbi kon kay su mënoon dara ndeysaan gis nga équipe équipe yi di football ñaata équipe ñaata nit ñooy nekk ci terrain bi xamoo ko non équipe benn équipe bi ñaata nit la onze mu am ci tuus bi ay remplaçant bu onze yooyu bu kenn sonnee dañ naan ci remplaçant yi na am ku jóg bu jógee di pour dugg da ngay dégg tribune bi naan ko xamoo dara boo xamoon teel a dugg wala wala loolu la xamoo dara wax nañ dëgg xamoo teel waaye kii ñu suul ñu naan ko li nga mënoon démb moom nga gën a mën tey xam ne dañ koy nax te ñu ko suul ah ñu ne mun na mun na dara su ma doon dara dinañ ko suul kan moo nangu ñu suul ko benn borom xam-xam bu tudd Yunus mu ne dafa am kenn benn sëriñ bu deewoon ñu koy suuli mu bañ a dem bàjjanam ñëw ci nopp yi ci kees gi de daan ne ko nooto bee xoto wat bu ne wuyul ñii di la suuli bàyyi li ngay def sëriñ bi mu ne xam nga li wóor mooy yekk naa jógal añ waaye jógal ñu suuli la kenn du ko wax nit mu ne li wóor mooy nit ki soo koy wax da nga naan ko yekk naa ñëwal ñu añ mu ne loolu la xel nangu yekk naa ñëwal ñu añ waaye ñëwal ñu suuli la xel nanguwul loolu wala ñëwal ñu suuli la kan moo koy wax nit ba mu ba mu ñëw kon jaay jaayaate la rek ma ne ku dee mënul dara dañ jaamu yàlla miy dund te du dee xayyun laa yamuut gis nga aaya bi bi ko yàlla di xam nga lu mu wax information yii nag lii ñu doon wax depuis sànq ba léegi mu ne wala yunabbi'uka mislu xabiir kenn mënu laa jox information yi ku dul man yàlla xam nga lu tax parce que muy mooy buur bi dëgg mbir mi jaar ci yoon mooy buuru dëgg bi bëgg mbir mi jaar ci yoon waaye keneen ku du yàlla rek boo demee mu nax la wala yunabbi'uka mislu xabiir kenn mënu laa jox information yi ku dul xabiir alxabiir mooy lan ku dañ kumpa ki xam lépp dañ kumpa mooy yàlla moo tax moo lay jox xabaar yi pour balaa ñu laa nax waaye boo fi toogee nag dugg ci dëkk bi dugg ci nangam nangam ñu nax la lekk sa xel tafu sa xel tafu sa xel ak sa pas-pas ni mu amee ay agresseur yuy sàcc portable am ay agresseur yuy sàcc kalpe noonu la amee ñuy sàcc pas-pas iman bi mu nekk ni sénégalais ñu bëri dañoo tafu seen iman dañuy dox ni sans iman moo tax lu ñu leen wax rek ñu gëm ko ñii ñu bàyyi leen julli ñii ñu bàyyi loo leen koor ñii ñu bàyyi loo leen ñii ñu bàyyi loo leen ñii ñu ne leen dañ leen di woon yàlla ñii sax seen bopp na ñoom ay yàlla lañ ku nekk ñu wax la loo xamante ne moo la gàllankoor ba demoo ci yàlla fekk lépp dara du ci dëgg bépp woote bu wuuteeg yono woote yonent yàlla muhammad woote boobu du dëgg woote bu nekk dëgg rek day tegu ci yoonu yonent yàlla muhammad ndax yoon wi gën a gaaw pour nit tegu ci dugg aljanna yàlla moom la joxoon muhammad saa yoo gëmee ne am na beneen yoon bu gën a gaaw yow alku nga amul beneen yoon yoon yëpp yàlla da leen a tëj lu dul yoonu yonent yàlla muhammad yaa ngeen ci hadis ëllëg yowmal xiyaam kan la ñuy jox caabi aljanna bu dekkee mooy njëkk a fëgg buntu aljanna kii garde ne ko kokkan la mu ne ko muhammad lan la koy wax yow lañ ma wax balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare kay leer na yoon waa ngoog kon yonent bi wane na ko mbokk yi lii moo doon sunu dars tey bu amee ay njuumte ñu ngi koy jégglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba subaak jàmm insha